salle de conférence bi sëriñ si Naar Dieng doon liggéey ci kër sëriñ Touba gi nekkee ci Touba Daarul naan mu nekk salle de conférence boo xam ne mën naa jël lu ëpp 1200 places mu liggéey ko ci ñaari at yu teg ay weer ndigal li bàyyeekoo woon ci Cheikh Sidil Maxtar Mbàkke yàlla na yàlla yokk ay leeram te taasu ci barkeem liggéey bi nag sëriñ si Naar Dieng liggéey ko ba mu àgg ci alxamis ji dëppook le 17 septembre 2020 di 28 muharram atum 1442 ginnaaw gàddaayuk yonent bi salallahu alayhi wa salaam cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke Bassirou xalifa général de Mourides ñëwoon fi doon nemmeeku ci liggéey bi ngir ñu jébbal ko li nga xam ne moo di caabi yi sëriñ bi bi mu agsee ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom la àndaloon wan nañ ko salle de conférence bi leeral ko liggéey bu am solo bi waaye li ko jiitu mboolem kilifa yeeg njaboot gi ziar nañ ko sëriñ Fallou Galass Sylla leeral ko li nga xam ne moo jëmoon ci liggéey bi. mi ngi lay seeral ne bokk yëpp noonu lañ la taxawoo ci liggéey bi nee na nag mi ngi boolewaat liggéey bi ak jëmmi boppam ak njabootu sëñ naar jenn gépp ak rakkam ju topp ci moom ni muy tege caabi ji sa loxo lay tegewaat seen jëmm yi sa loxo jébbal la ko ndax ñoom doonuñ ci seen bépp dara benn baat rek la ciy dolliku. mooy taalibe yi dañ cee sonn coono boo xam ne bu sañoon soo leen xoolee bëtub yërmande rek wóor na ko ne seen aajo dana faju mu bëgg nag loolu sëriñ tubaa waxoon sëñ Isaa na ko sa jëf moo la jiitu ci kër gi ba fu ma gestu sa jëf seere la fa nee na moom delluwaat ci kër ga ci bunt bi la taxaw di dégluwaat sa ndigal ndax daa bëggoon foo gestu ci say bët rek daje faak jëfam yoo xam ne ci kër sëñ naar lay bàyyi koo jaar ci kër sëñ baar dem ci kër sëñ isaa nee na kon mi ngi toogaat di déglu ndigal di xam ne xolam sedd na xelam gën naa dal mi ngi gën a dëgëral yaakaaram tey ñaan yàlla nag lépp lu nar a jëlee ci tuyaaba ci liggéey bi yàlla na ko yàlla teg sa jëmm ji muy fan wu gudd lool wa ànd ak ngërëmul Serigne Touba ak àggale sab liggéey fa nga ko bëgg a àggale ci barkeb sëriñ Touba. ginnaaw loolee la ko Serigne si Nar Diène jébbale caabi yi boole ci addiya joo xam ne xayma nañ ko ci 3 millions 700 mille francs CFA mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne def na ko. tey jii di bësu mbégte ci moom ginnaaw bu mu jébalee caabi yi boolewaale ci àddiyee jile ci la yëkkatee nag ay kàdduy cant jëmale ko ci Cheikh Mamadul Muntaxa Mbàkke Basiiru cib taxawaayam waaye liggéey bi nga xam ne moom lañ leen santoon mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nee na mi ngi nuyu sëriñ bi di ko siyaare nee na tey yeesalaat ak njëbbalam akuk taalibeem ànd ko ak nag njabootuk sëriñ naar jenn gépp ak taalibe yëpp nee na di sant dam nag ci dikk gii nga xam ne dikk nga ko fi ngir nemmeeku liggéey bi nee na wóor na ko ne boo yabaloon donga ba gën a tuut mu dikk fii na yaa ko yabal nee na doy na ko sëkk kon nag boo jógee sa jëmmi bopp ànd ak sa njaboot ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba rekk a tax nee na kon xolam sedd na guyyu xolub taalibe it sedd nañ guyyu noo ngi ñaan yàlla mu yàggal la fi lool te may la ak wér ba mbooleem li nga yéene ci liggéeyub Serigne tubaab yi yéene ko ci njaboot gi ak taalibe yi ak jullit yépp yàlla defal la ko te nu ànd ko nag ak yow ndax yow kat ku la xam xam na ne sa bëgg-bëgg bépp sa yëngu ak sag dal mooy mooy ñëpp am aajo ju faju nee na jëlale nga sax murit yi ku la xam rek ci loolu rek la la xam kon nag ñoo ngi la koy ñaanal baax a baax a baax nee na xolam sedd na guyu di sant itam sa jëwriñ jii nga àndal di cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke mii ngir moo teg si woon xeer wi ba xeer wa jàlle da koo ànd ak nun saa su ne muy ñëw di ñu seet si di ñu soññi di ñu ñaanal bam nu joxee ndigal li itam yët ñu plan bi Cheikh Sidi El jox nu ko moom mii mu andi plan bi lan la waxoon lan ko waxoon na ko ñaanal na ko ci ci dara darajey Serigne Touba yàlla defal nañu ko ci kon noo koy sant bu baax sëriñ Moussa sa jëwriñ jiitam ñëw ne fii am na fi lu ëpp waxtu sant bu baax ñaanal nu noo ngi koy sant bu baax ñoo ngi gërëm ñëpp liggéey bi nag Mbàkke liñ ciy ñaan la Serigne Touba waxoon Cheikh Issa. la Serigne waxoon Cheikh Issa. ca jumaay njaareem ji. ca njaareem ji. ba mu noppee. ba mu jébbal ko caabi yi. mu jébbal ko caabi yi. ak mag ñi. ànd ak mag ñi. Serigne Touba da wax ne ko. da koo wax ne ko. Issa. Issa. sa tabax gii. sa tabax gii. misbaahu ahli samaa yi. wa najaatu ahlil ardi. wa najaatu ahlil ardi. lampam ñi ci kaw. mooy lampam ñi ci kaw. mooy muccug ñi ci suuf. mooy muccug ñi ci suuf. ku ci teg sa ku ci teg sa bët. ci tabax gii. ci tabax gii. mu neex ko ci xolam. mu neex ko ci xolam. mbiram dana ci yéwee ne àdduna ak àllaaxira. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. bi mu liggéeyloo Serigne Baara armeel yu yees yi. muy Baqiya. mu wàcc ab liggéey ci biir liggéey bi. Serigne Naar Jenn àggale ko. keroog bi mu joxee Serigne Abdoul Ahad caabi yi. da ko wax ne ko sëriñ naar waxuma la yéen waar njeen ñi ko doon liggéey waaye képp ku fa jaar def ca daraam rek mbiram dana ci yéwéne adduna ak alaxira waxuma la nag yéen ñi ko doon def loolee nag yaa fi sëriñ Touba te mbooleem ñi la fi jiitu woon tàmbalee ci Cheikh Mamadou Bachir Cheikh Mouhamadou Moustapha sa mag ju baax ja Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Salihu sa way jur yi ak sa mag yi fi jaar yëpp ñoom ñëpp làq nga seen ngërëm kon làq nga ngërëmul sëñ Tuubaa noo ngi ñaan kon loolu yi nga fasal nu ko ci suñ liggéey bii te boo ko ci fasee danañ ko am noo ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax liggéey bi nag niñ ko liggéeyee ñi ko liggéey ñëpp ñi ko liggéey ñëpp taalibey kër gi rek lañ. jëggaani wuñ fenn dara. liggéeyu murit it lañ ko liggéey. aca murit rek. maçon bi jiite woon liggéey bi. taalibeb kër gi yam ko àndal. taalibey kër gi lañ. conférence def. taalibeb kër gi pentir. taalibeb kër architecte bi defar bi. waaye architecte bi defar plan bi. bi ñu noppee bi ñu ba mu fi ñëwee. dana li ma leen joxoon. dana li ma leen joxoon. bàyyiwu leen ci dara. bàyyiwu leen ci dara. bi mu seetee xaalis bi ko doon liggéey li fi des. ñetti million la. ñetti million la. ak téeméeri junni. ak téeméeri danañ la ko jox. danañ la ko jox. teg ko ci sa loxo. muy addiye ji. bu Cheikh Bassirou Mbacké dikkee nag. bis bu Cheikh Bassirou Mbacké dikkee nag. muy ubbitali nag. muy ubbitali nag. luñ ci soxlaa jëfandiku nag. soxlaa jëfandiku nag. jëfandiku ci. sëriñ Bassirou jox na ma ndigal li nga ko jox. sëriñ Bassirou it jox na ma ndigal li ko jox. ngir koy saytu barab bi. ngir koy bi. Ali Jenn mi fi nekk. Ali Jenn mi fi nekk. bañ tàmbalee ba nëgëni. bañ tàmbalee ba nëgëni. moo fi nekk yor ko. yàlla dogal na yi fi nekk yëpp. miin na ko. te luñ fi war a def itam. saa yu woo mbooloo mi. danañ dikk def ko kon Mbacke jërëjëf. ginnaaw kàddu yi Serigne si dinaar jenn yooyu Serigne Mountakha Mbacke Bassirou yëkkati na fa ay kàddu santaat ko bu baax a baax ci taxawaay bi ak liggéey bu sell bi nga xam ne moom la liggéeyal Serigne Touba fii ci résidence Khadim Rasoul bi nekkee ci Daarul naan mu nekk salle de conférence boo xam ne yoon wi téewoon nañ ko lool ndax mu ngi fiy door a am loole nag nekk taxawaay bu am solo boo xam ne Serigne si dinaar jenn wane na ko ànd kook mbooleem njaboot gi ak taalibe baax a baax a baax nee na di leen seereel itam mbégteem mu amati mu rëy rëy rëy nee na sëñ xam na ko xam na ko lu jiitu lii nee na moom nee na naar seere woon na ko seen diggante ba tax na lépp lu mu gis ci jëf mu jóge ci moom nee na du ko bett nee na yaakaaram réyoon na lool ci moom waaye dafa dolli nee na xolam seddal ci moom bii xelam it dalal na ci moom naka jekk nee na xalaat di ñaan fu mu ci mënoon a toll. suñu borom bëri ko ci lu kawe kawe njor. nee na ak ci ak fan bu gudd gudd. am na kattan ba gën nekk ci liggéey. nee na mënul dee sori. ndax. dañ delloo tënk rek xam ne si si xam nee na wala bi moom nee na li mu ciy doon ci jataay bi nee na di leen seeral yeesal teem yeesalam bu muy gën a yeesal jaayam teem ak sëriñ bi ak fas yéene ku mu gën a fas yéene fett ak laxasaay fas ko yéene ànd yéen kon jërëjëf nee na am na ci ab soññ bu rëy ak xel mu dal ko tee ak rafet lool lool ci ne seen i mbir yooyu biir ak yooyu bitti seen mbir tey ak yooyu ëllëg lépp dana alal lépp danañ ñëw. lu kawe seen njort. lu kawe seen njort. nee na xam na ne yéen ci sell na. suñu borom boo yéene rek mu fay. jëf yi itam rëy na sell na. boo jëfee sell na mu fay la fulal la. te suñu borom boo jëfee sell jëf mu fay la fulal la. rawatina nag koo xam ne sëriñ Tuubaa rek ñoo seqal kon xel mën naa ko bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf sant sëriñ si ak bokkam yi ak bokki taalib yi man ko jëm yëpp mi ngi leen sant di leen gërëm ñaar rek la man